lillahi wa inna ilayhi raji'un la ilaha illallah ginnaaw juróom-ñaari néew yi nga xam ne nag maanaam gis nañ leen day àjjuma ta ngoon waaw am na beneen néew boo xam ne day gisaat nañ ko kon tasaatu jégga yéeni ka ay dee ba jaagi ne fukk ci ay doomu aadama dee ñoo dee te malika gële te jamono joo xam ne ne xale yaa ngay lab di dee rek waaw tribune yéene kaay nee na code pénal ba day ak code de procédure pénale ba yéen wàllum terrorisme ko maar di tali alaaji Malick Gakou waaw nee na gis nga loi bi de xuus ma ñàpp fitnaal nit ñi jaay doole la lu leen neex lañ def a fa yéene kaay ne gis nga boo bëggee dégg dëgg waaw loi bi la day kumba am ndey kumba am ndey la nee na ñoo yaay la waa bitim réew santaane googe il faut ñu wàccoog moom ñoom waa nguur gi waaw loolee la ñu daafantaloo di ay engagement internationaux tax na ba ñu indi nag ay topp ci code pénal bi de waaye nañ xamal Macky ne ko yéen kaay gi ne waaye lu mujj lu yàggul dara wàllum parrainage gi lée lan la ci cour de justice bu CEDEAO googe daal di wax a tax Macky dellu ginnaaw déedéet yéen a kaay mbéy tàndum waaw nee na santaane yi nga xam ne tribunalu CEDEAO googe waxoon na ko nag ci a Karim a ak Khalifa Babacar Sall waaw mais Macky Sall gi kon dañ koo jël football ko tegee ko ne te boo waxee rek ñu ne la wàllum souveraineté Sénégal daal moo moom boppam kenn du leen jàdduloo gauche ni droite ñang ñang ñang pati ba tata waaye dama ne dem football ko sànni ko ca mbalit ma nag laa la wax la ilaha illallah suñ ko di yéene gis nga wàllu te googa code pénal ba waaw taxawaayu opposition bi El Hadji Amidou Kassa day nee na gis nga opposition bi la wala sax ñu ne la rek seen rôle lu nguur gi wax jéego bu ñu def ñu ne du dëkk dépassé wu ñeent laa la wax nekk ci rajo yi da léegi di ñal bëgg a indi fitna ci réew mi lé fitna gi daal lañ jël léegi daal di koy ndax ele wàllum politique bi wala bàyyile ko ko yéen ci opposition bi daa wax de waaye nag na leer ne du ñu nangu moo ab minorité passé wu ñeent bëgg a indi fitna ci mim réew du fi amee man alaaji Amidou Kassama ko wax maa mbay ñaa ci enquête yéene waaw ne man moom waa kër Ousmane Sonko laay lu ñu bax ñu ngeer ko daala wax parce que nu ñu la ilaha illallah ay ana indépendance mais tey laa ci Amadou Sall ci tribune yéene kaay waaw nee na ay erreur yu gaaw moo am ci loi bi ne erreur bu xasee am rek am na erreur la erreur la réew mi quotidien ne il faut kenn dee de ci diggante opposition bi angur kenn dana ca mortal combat la de tooki fee parce que gis ngeen Sénégal gi lée wàllum terrorisme bi laa la wax maar di tali waaw xoolal ma kàddu yi nga xam ne kon moom la Cheikh Tidiane Gadio yëkkati ci suñu xabru yenn ci ay kilifa diine waaye Cheikh Tidiane Gadio dootu ko defat gaay yi ŋàññ nañ ko dal ci kawam xaw nañ koo rey xanaa génération gàcc gàcc la yéene kaa gi ne coppite gi nga xam ne na mën nañ koo indi ca googe waa GB jàngalekat ya bisu tey bi altine day dañuy gereew boog moom li ne dëgg la jàngalekat yi kay la ñuy sax ci Macky Sall mi la mooy mu nii la loi bi laa la wax Dakar Times nee nañu daal Sénégal jaaree ko ci Casamance ak ci Kédougou waaw Macky Sall ci boppam moo war a génnee këyit yi nga xam ne moom la ko direction renseignement national bi jox enquête yéene kaay ne Fatoumata Ngaye Fouta Tampi tey Amazone Fouta bi la section APR bu wokkaam gi lee la nekkoon adduna yi dox bam soppeeku Fouta Tampi ndaxte koo xam te boppam Fouta googee la bëgg mu développé looloy dëgg waaye xale bu jigéen bi léegi dañ koy menacé ba daanaka ñaari fan yu ne mu daal di Bilal Diallo day affaire waaw nee ay nit ñoo xam ne ci nguuru Macky Sall gi la ne ñooy financé waa M2D opposition bi de waaw Aliou Sané yaanaama ci laas yéen kaay waaw nee gis nga bu ñu demee nit ñoo xam ne yow ñoo daaneeloon Abdoulaye Wade tey ñoom ñooy jàppale Macky Sall xanaa lii mooy tëb waaw waaye ñoo Abdou Karim Gueye xurum xaax lan lañ def lu dul manifester pacifiquement ci jàmm ngir loi bi buñ ko bote ñu jàpp leen door leen gaañ leen waaye lii lan mooy ndeyam Aliou Sané ne Macky Sall nag na ko ne loolee duñu ko nangu tey te duñ ko nangu ëllëg laa la wax sur Sané waaye Ousmane Sonko ak Mbéri Sylla mi doon xeex te cinquante neuf ma la ñu wax te Ousmane ak mbiri ca óol ba lañ nekkoon looloo leen sowe jërkat reer yéene kaa ne Abdoulaye Xuma day waaw déclaré na candidature am ca commune bu Kaolack gale farma booy bu PDS day fekk na Xuma laast déclaration candidature ya day ma nga mel ni tulleeg ma le dama ne la Cheikh Issa Sall investir nañ ko kon ca Mbour Sitor Ndour nee na Fatick dara soppeeku fi laa la wax kon man candidat la Xuma day candidat la ca Kaolack yéene kaa ngi Tambacounda gële tribune yéene kaa waaye ndaw yi nga xam ne ñoo ànd ak Mamadou Kassé day des ew sikaab nee nañu du ci dal tey te du ci dal ëllëg laa la wax ndaw Mamadou Kassé yooyee ci évidence yéene kaay waaw nee nañu Sidiki Kaba doy ñu Mamadou Kassé moo ñu doy ci Tambacounda gi le tribune yéene kaay ne ngir daal ñuy jël nag entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi day askan way yeewoo ceku la naay buux nañ sinuwaay ba sinuwaay a nañ fa laa la wax sursaane askanu gi ñoo na googe leen seeni bagage te dem ñoo war a faratal société nationale yi de tribune yéene kaa ne président Macky Sall day ma nga woon te kër Khalifa Sall doon ko jaale Le Quotidien yéene kaa ne Macky Sall mi dem seeti Khalifa Sall day la fa doon ñaaw Marème Faye ko defar de ah la première dame defar terrain ba ngir ñaari salleen yooye mën a toog dem naa ca lamb jë arène yéene kaa ne Moussa Ndoye day sa Thiès daal dina koy daan d'accord nag Alioune Seye numéro deux door na Issa Pouye allahu akbar Youssou Ndour day doomu Père Balla waaw daal di ne daaneel bébé jul day bu leen fàtte ñaa bu ndaw day moo daante lu amul benn werante <laughs> waaye lamb ji moom weekend bi sàjjoon na di waaye lamb ji dee ak lu mu sàjj sàjj sàjj sàjj sàjj sàjj sàjj du gën a sàjj suñu pétrole bi laa la wax parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree mën a la alaaji tëjal ngir jot suñu ay vidéo di di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës bokk ci programme bi national international